mën na koo yóbbu. laa ilaaha illallah mais Aziz social. laa ilaaha illallah. ceeb bi ceeb bi. camion ceeb camion ceeb waaw jaajëf waay camion ceeb camion ceeb Aziz La ilaha illallah sagam ni kata. Hey why? Hindi mo tayo mo ko pwede. Ma'am, ma'am di mo jam. Asan dal? Asan dal? Eh? Asan dal? Eh? Asan dal? Eh? Mais jëm nga sa ceeb. Asan dal? Gaay ñu jëm seen ceeb. Asan dal? Gaay ñu jëm seen ceeb. ها نيل ميرسي عزيز نيل ميرسي عزيز wax leen merci Aziz di leen wax jërëjëf di leen wax jërëjëf nee leen jërëjëf Aziz laa ilaha illallah jërëjëf Aziz laa ilaha illallah allahu akbar neel jërëjëf Aziz eh neel jërëjëf Aziz la dama jërëjëf Aziz. jaaraama kay. ah waaw waaw jaarajëf jaaraama Aziz Ndiaye. Tiwaawoon Tiwaawoon xam nañ kat mooy Aziz de maire neel jërëjëf Aziz. jërëjëf Aziz. laa ilaaha illallaah kontaan nga xam ne saako ceeb saako ceeb heure bii saako ceeb heure bii ku la ko jox. laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah. ay sëriñ si laa ilaaha illallaah. laa ilaha illallah Aziz maire yi sant nañ la gërëm nañ la maire yi ñee maire yi ñee maire yee ngi wax jërëjëf Aziz jërëjëf Aziz xool dégg lu leen rek jërëjëf Aziz waati waawoon ñëpp nee nañ jërëjëf Aziz laa ah, ilaha illallah li ngay taxawoo tarixa bi yàlla la yàlla taxawoo. laa ilaha illallah ñaan yi rek la soxla. ñaan yi rek la soxla. laa ilaha illallah xool lii rek ñëpp lay joxe sax fi mu nekk nii joxe na ceeb ba pare. laa ilaha illallah. ndox ceeb lépp nga joxe ndox ceeb. لا فايدة لك تم لا إله إلا الله لذلك صلى ورسول خان ديك دبي آه لا neex na si xol lii dama ni lii dafa neex si xol lii di ko ñaanal laa ilaha kaay ñu jox la am sa ticket ticket rek ngay joxe jël sa ceeb ñu ngi koy yóbbu foo amee ticket moom da ngay am ceeb soo amee ticket rek da ngay am ceeb waaw jaajëf waay léegi si jàmm. asile social. laa ilaaha illallah mais al amin social. <laughs> assise laa bëgg a dégg. amatul assise ale assise sociale. assise sociale assise sociale. laa ilaha illallah. dina ah. Aziz sa am na njëriñ sa dund am na njëriñ sa dund am na njëriñ Aziz laa ilaha illallah. ay asile sa dund bi am na njëriñ asile social sa dund bi am na njëriñ laa ilaha illallah dëkk bi li mu dëgëree nga siy joxe ceeb dawlin ah ceeb dawlin courant lépp nga leen jox waa Tiwaawan barki Sëriñ Tuubaa coo tot tot tot tot asile sa dund bi am na njëriñ xam nga ni sa dund bi am na njëriñ ko ñaanal ñaanu xaaf rek da sëñ mën soo si doon ñaan ñaanu xaaf ñaanu xaaf nit buy def lu baax da koy ñaanal ñaanu xaaf laa ilaaha illallah maanaam masata kilifa si kër gi kii mooy mooy taaw mooy baay mooy lépp masata bii naa def tey yàlla mooy xarit maa ngi lay siyaar <laughs> naka gàmmu gi ah gàmmu gi moom xam nga loo def defoon yàlla dimbali nga fekk waat hmm. te mën la nga mënoon baa mu yokk da ngay sant yàlla mm-hmm. ku dul sant yàlla mm-hmm. ku dul sant yàlla mm-hmm. doo sant nit nag yàlla moom ka war di sant rek te wóolu ko am na ñoo xam ne ñu gëm yàlla te duñ ko wóolu loolu sant yàlla rek boo xam mais preuve waaw man damay dégg damay gis ni mosata ay su waxee bi Mariam su waxee masata Baye Ndiaye su waxee masata lay tëj. Baye tam bi am na loo xam ne tamit yow kenn kenn war la ko wax. waaw loolu na ma tam. kër gi kër gi la. Hmm. lan moo tax cër boobu ñu jox ko. dafa porte parole ki toog ci xalif bi xalif yaa ngi toog ak xalif bi. porte parole am na fi noonu la amee fi noonu la fi noonu la fi amee jëwriñ jëwriñ bi Baye Ndiaye la porte parole bi Aziz la xalif bi ngi noonu toog hmm. tarixa rek la. man loolu jaaxal bi eh, léegi ban secret ban secret la la la am Masata Masata lan mooy secret. man secret ci bi maanaam secret bi baatit la wala lan la la cër bi nga jox. cër moom ki koy joxe da koo xam. ñun cër boo mooy secret bi.

famille boobu coow maanaam nan nga koy dundee li ngay àq masata masata masata masata oto bi ci kanam moom bi ci ginnaaw kenn du ko kon noonu oto bi ci kanam rek la ñuy kon Sénégal moom ñëpp xam nañ li ci baaxul mooy wax mais bu ñu lay waxal loo xam li wax lépp dara du la déranger mm-hmm. yow mbay mi bu ñu waxal loo xam ni yaa ko jëfe wala nga dëkke ko dina dérange say mbokk mais bu ñu waxal loo xam dalay wën li ñu wax lépp dara amu ci te li ngay def lépp mbaax moo ko lal ak kóllëre looy tiit looy ragal kon moo fi ne Sénégal moom bu ñu nga suukar naan rek ah, ngeen nar a gàmm sans seen papa saa ko amoon nañ sans bayaale ndax àdduna ñaar moo am bànneex ak naqar yàlla su ma juumul dee la jëkk dund ko dund kon àdduna chaque jour da ngay sóoraale da lu neex sóor ku xool ci Seydina Muhammad ñu yàlla def ko ni wala ni meloon mu ñëpp xam mooy gën gi mbindeef teewul yàlla da ko fay jël kon ku ñu dee dina fi ba sa baay yaa ngi naax sa bopp foofu rek doy na doy na exemple waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ci moom la yàlla wàcc lu bari ci moom ba diine lislaam jox ko teewul lislaam ak diine la fi waaye lislaam a ngi dox ba léegi faratay jullee ngi dox a ngi dox ba léegi kon bàyyi la bu fi jugee du tee ñu ngi dañu gàmm ba léegi gàmm ku ko sosoon jug fi ba léegi ay doomam ak i sëtam ñoo koy def ay doom sax jug nañ fi ba jeex laa yaakaar ay sëtama fi des kon li ñu dox kon tey bàyyi lañu jaamu yàlla bu xeeb boobu di jigéen tamit di coow li ñu dox aleykum salaam ñu sant yàlla bu baax bàyyi leen jàmm alikaala macha allah ñu sant bu baax macha allah non as dugg na. dugg na waaw jàll nii. aleykum salaam. maa ngi lay. maa ngi lay. soo jékki-jékki. réseaux sociaux yi jékki-jékki Aziz Aziz Aziz Aziz Aziz Aziz dàq dàq na kii Aziz def na lii Aziz def na lii bu ma ko woo benn jour dëgg Aziz tiit naa de. lu mu def ba muy tiit fekk jabar day kër. déedéet mais réseaux sociaux yi dañuy jékki kaa dañuy nekk si Aziz. yow dañ ñaa ba réseaux sociaux yi. dama lay laaj rek. ah déedéet est-ce que ba nañ la. déedéet wax dëgg yàlla. waaw ah, déedéet. mais yow moom boobu ñoo koy kër. laajal sa bopp rek lan moo tax réseaux sociaux yi yooyu dem coow di wax rek laajal sa bopp rek. ah agressé nañ ko ci. laajal sa bopp rek ay blessure agressé nañ la ci. ndax li ñu wax ay lépp li nga mën a teg sa bët. agressé nañ la ci. jëlee ko ci ay blessure. ba Birane Ndour moo la dimbali. waaw bu doon Birane Ndour tey jii nii. dafa daan doo tal mais interview bi Masata. yow xam nga réseaux sociaux. non Masata loolu waaw. kilifa gi nga kii bàyyi doo doo war ne ko ah wàññi coow coow li bëri na de mën nga koo def ko woo ko benn jour ne ko wàññi coow li coow li bëri na. daa def Masata. Masata. Masata Masata Masata Masata en papa kii. même coow dafa xaw a laal Masata. ah Masata kay. bàyyi ko rek xalif la. Masata moom bàyyi ko rek xalif général la. keroog mu indi wàccee Balla Gaye coow li ko topp Masata wu indi Balla indi Balla. xam nga Masata. Masata am na question boo xam ne moom la ñu ko war a laaj. mooy tax Masata Masata national. ah. ba si sa àll. national loolu ma koy laaj mooy national national waykat ana masata. <laughs> ma laaj ko moom léegi dalal bàyyi jaay ana masata <laughs> masata gi nii sénégalais yi masata gi nii kii mooy masata. xam naa yàgg yi ngeen ko gis loolu si lu bëri si réseaux sociaux yi di wax du def dara mais kii mooy Massata kii mooy Massata Allé. xaritu Mara yëpp. xaritu Mara yëpp. ñëpp kay. waaw ñëpp. ñëpp ñëpp ci wàllu mystique rek Massata sa xarit rek. Massata Massata nag man man damaa yow si benn ci Mara boobu mu jaww maay mu sànni ma parce que sonn naa trop <laughs> mais ana sa bëri Balla Gaye. da ngay wàññi coow wàññi coow rek. ah <laughs> waaw. voilà moo tax maaraay bëgg la da ngay joxe xaalis bëri wala. waaw man damaa am xaalis masata am nga xaalis nag masata am nga xaalis masata am nga xaalis masata. maa ngi sant yàlla. parce que soo yoroon xaalis woykat bi ñëw. yàlla ah, wut ci wala maa ngi sant yàlla waa yow. ah nee ma waaw yaa ngi am xaalis waaye am temps yaa ngi ah waa lii ay temps danaan la woy dama la daan di gay la woy am nga xaalis dama la. ñaata yoon lañ la woy. man man. borom xaalis bi. léegi yow yow. Mara yi lan moo tax ñu bëgg la. Mara. kilifa yi. kilifa kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa ñu nekk si réseaux sociaux yëpp la def. yàlla koy def. ah. yàlla koy def. policier. policier ah.